بسم الله الرحمن الرحيم أوصيكم بالصبر على ما يصيبكم من الناس أعداء الحضرة قال تعالى والعاقبة للمتقين أن يالا نينا مجكورة فات بور موغل يالا كمو lu pënd bi yàgg-yàgg seen bu wuree seen mbubb di xotti ko wa qaala in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdaamakum nee na feneen su ngeen dimbalee yàlla ci def li ngeen mën ci leen sant sellal ko moom mu dimbale mu leen mu def li ngeen mënut te itam daf leen di may ngeen cadré dëgër moom la arab bi seen i dëggu taxaw du tarxiis du du dugg ci ndox dugg ci botoxam hmm? wa qaala in tasbiru wa tattaqu laa yadirkum ñi ne laa yadurrukum kayduhum shay'an mu ne yàlla wax na ci alquran ne e su ngeen muñee te boole ci ragal yàlla pexem noonu yi pexe du leen wàññi dara falladi bon fii xam nga mën nga ci génne yow soo yu bëri xam nga bàyyi wax na jaaxal tan bind ci loxoom ne yi ndax kudul fen nee na ma loxol mbindeef du egg ci yow ci lu lay lor mën nga ko génne fii sax ma ngay muñ ma nga ragal yàlla yàlla nee na ko dara doola lor mais dara lor yonent nee na xat it doo ko dégg mukk ci koo xam ne dafay defal ni ñi lu baax sanaayul maaruf taqi masaari asu moom zaahiram فالذي ينبغي أن نتخذه دينا وديدنا ونصحبه غيبة وموطنا إنسان أو لا إنسان هنا لعلي ورد في نجلكم ويسوين باخ ويسوين آدة ويسوين جينيزم تن عندك موم فين من دي جم وين تكيك وين جبسي موي نيو عندك عندك خمنا موم بلا فاتحكم وهي الله برفض كل ما سواه برفض كل ما سواه لكل lu dul moom nga bëgg ko teg معشر المدعين لطريق القوم أتم أتم أه، دي دينا وديدنا ونصحبه غيبة الموطن هو الصاحب الذي la yunsa wa mu mu commencé wat ne fa rafdu kulli ma siwahu fëgg lepp lu dul yalla tek ko fe waajibun lu war la alayna ci ñun xara mu dayi na ñi wote ne ñi ngi ci yoonu gañ lu lu si gàkk ci la nek mu gën ñi koy ne lu dul yalla ñene ko fu ñu ko daf ñoo wañu وإن لم نقدر على الزهد وإن لم نقدر على الزهد فلنزهد فيما لم يقدر ولو من أنا بو أتي بوك نفخ بوك بدد لوم دغل بوك لي أنا دغل كي يو دد لوم كو يوم لا وين يو أمو خالص ديكو جيو دام yow yow jotoo ci waa ji def ko dara yaa ngi ne ngay def ko dara gaañ ko hmm? xam nga mooy maanaam lu mu dogalul nga <laughs> mu ne boo mënut a dëddu li am au moins boobu dëddu li ko xam nga am na waa ji dogal man boo ko mu ne baraam réer a bon man ah. dégg naa jiw jiw te de ko loolu xëy retraité wala bon mu ne jiw dégg naa tey mu wax loo xam ne loolu réer a ko mu ne ko sama xanaa li mu waxoon na de mu ne waaye dafa passé ba loolu mu ne waaye dafa toog ci kanam moroma ñi ngi baloot noonu mu ne fi nekk de man xanaa man def fi mu ne li ma daan def ci ci ci yu bon ci dëkk bi mënatuma xanaa yéene ji rek moo ci des mu ne mos ngaa gis ba nit ku doon def lu ba mënatoo ko nga yéene nag ko yéene di ko def mu ne ma man quoi lii passé na alors tu sais ah ba mu ne boo mënta dëddu àddina dëddu comme suuf nekk zaay ba mooy boobu lu yàlla dogalu daal na ko dëddu idi taalluqu bi maadumin taabun shadid ndax aju ci fonk topp loo xam ne amul mu ne kooku coono bu métti la waa wa natlubu min allahi alxikmata aw xusnan min axsaaniha te itam nañ ñaan yàlla mu may ñu xikmatu xikmatu yàlla nee na man yutal xikmata faqat utiya xayran katira ñu ne mooy xam-xam bu jëriñ ñu ne mooy sunna nañ ñu xikmatu wala boog ab banqaas ci banqaas xikma fa innahu jalla min qaa'ilin qaal wa man yutal xikmata faqat utiya xayran katiran mu ne yàlla wax na ne ku ñu jox xikmatu rek na nga xam ne bare bare bare aral bàyyi kabnaari jaan laakiin biko way digan jaay soo koobnay qoyskoo bilano yaa yalana ma utitu min cilmi ilaa qaliilan ci ay wax baalim salaf looloogii waaye bari mi ne koy dem am na ñu ñu wax lool ma am na ñu ñëw woon ñu dëgg ma tabbata mu ci waxee na kasiiran kii qaliilan la yàlla ko kii kasiiran yàlla ko sadaq looloo di mu di ree waaw yàlla na tuuti ngeen xam ah xikmat nee na ku mu ko jox jox laa lu bëri bàyyi na tuuti yàllaa ko wax bëri yàllaa ko wax qad alima kullu unaasin mashrabahum dégg nga de xikmatu wala boog sax benn banqaas mu ne yàlla nee na euh, ku ma jox xikmatu rek jox naa la yiw bu bare bare bëri euh, xoolal nag mu ne wa baabu zalika boo buggee dugg nag ci foofu ma lay joxal fan al firaaru ila allahi bi firaari ila abwaabi du indi problème lu ma une solution parce que pédagogue mag du ne nee pour lu mu ne mooy buntu ba mooy yàlla yàlla mu ne fa firru ila firaari ila abwaabi mooy nga daw comme yàlla amul barab walis barab daw jëj boobu mooy daw jëm ci ci am na feneen ku wax ne daw jëm ki mat ci sa jamono el firaru ila kaamil asr kooku mel ni règle universelle la ku feebaroon daw foo jëm ci médecin soo mënee am ba gën a mag moo gën dajale nga aje bugg a tabax dawal jëm ci tabax kat mais xanaa boo mun boo sa ki nga xam ne kay du tapale yëpp yi ci ngay n'est-ce pas nga war a daw jëm ci tribunal xëy na doo dem ci wala xaati bi noonu wax ji ki ñëw ki xolo xolo ki xolo ki kenn ki ñëw wax layam kenn ki ñëw jox ko dix mille francs mu gën séance dina ko si foog nga ne kii ni mën na ko wax dëgg alsira ila kaamil la bàyyi daf ne ndax boo demoon di laaj bi lu mu amul dina ko mën a fàq du chey laa yox ti droit la même rek droit la nit lu mu la ameel ameel bu amul mënuluñ ko dara xanaa dëj واو البشرى إلى إلى أبوابه من لأنه قال وقت البيوت وقت البيوت من أبوابها غير أنا بن بوي جبنت نيك jaara ci bunt bu bul tëb ci fenêtre yi boo ko dem ci yàlla dawal jëm ci yàlla mooy dawal jëm ci ولا يصح إلا بالفرار من النفس وهواها وشهواتها والشيطان وابنتها الدنيا te daw boobu te bul foog ne dafa yomb da ngay dawaale sa bakkanu bopp bi ndax daf lay digal yoo xam ne kenn xool du dëgg waaw <laughs> ah? daf euh, daw sa passion yi nga xam ne yu amul amul njëriñ ah? daw sa bànneex yi nga xam ne jaarul ci yoon daw seytaane bi nga xam ne moom waat na ne dana sànq ñëpp daw itam yi nga xam ne mooy la fii bi bi bi bi bi àddina am man da maanaam fii bi bakkan am mooy àddina àddina ji boppam moo dajale yooyu yëpp nga daw ko wa yuinu ala hadihi al aadaa al ictisaamu billah muy nafs muy hawa nafs muy shahwaatu nafs muy shaytaan muy dunia zuxruful xaal dunia yëpp mu ne la la cay dimbale noonu yooyu mooy nga moy ci yàlla ak mooy ci xablullahi te mooy sunnatu nabiyina amran wa nahyan wa xalluqan wa taxaquqan wa mulaasamatan wa taxaquqan donc euh, noonu yooyu hmm, adu ñoom nee na leen ci bokk jàpp ci yàlla mooy gëm sóob jàpp buum yàlla gi mu mooy sunna ak yonent bi ci ndigal nga def ci la yi nga bàyyi jikkowoo ko ba mu wóor la nag wa mulazamatil azkaari tijaaniyati nabawiyati bukratan wa ashiya taqoo nag azkaar yi nga xam ne tariqa tijaan yi moo ko jàngal ndongo yi te si kër yonent ba suba ak ngoon mi ngi commencé ci wérdu ci gën euh, mu am impact na ci sa jikko ak ci sa yëg suba ak ngoon bukratan wa ashiyan bal laylan wa naharan guddeeg bëccëg sax fa mu ne nu muy amee mu ne bi tathiri sirri amma siwal mazkur war nga fexe ba booy sikkar bay tudd ki ngay tudd sa biir moom nga laabal ko ba set ba kudul ka ngay tudd doo ko soxloo wal uslatu la ahsana minha tok tok nag ne ñoo ngee beru nag muñ grand place yooyu beru mu ne amul lu ko gën a baax illaa ida kunte mufidan aw mustafidan muradan aw muridan beru nag waxuma yëpp su fekkee ne bi nga nekkee ci mbooloo mi pour jëriñu la wala pour jëriñ sëriñ nga moo la fi bàyyi wala taalibi moo la fi indi mu ne boobu wax mu nga beru xam nga murid mën nga commencé ci école xam nga murid la ci xam-xam balaa nekk muraad day dem ba mën a jëriñoo xam-xam ba wala mën ko jàngale murid mooy ki ñëw jaayante fekk ba muy mën a recevoir ay ñuy jaayante murid la foofu eggee foofu muraad la nee na nag foofu yëpp waxuñu la nga beru parce que wax ji bu ko dégg mu ne beru dara gënu ko war a fekk te ñàkk a beru tey jëriñ di jëriñu nekk sëriñ mbaa sànni nekk ci tàmbali mbaa nekk ca njoloxtoon waxuma la ci isolement la preuve en est moom daaw isolé mais nag koo xam ne vraiment boo jaxasoo nit ñi juree ko musiba ndaw yi rek la waaw wa man kaana yasxabu muraada soxbati booy ànd daal moo xam taalibe nga moo xam sëriñ nga lu ñu ko mu ko mu yoo daal ñi ngay àndal na nga doyloo ñi nga xam ne dañoo dëkku ci doy nañ sohbal hakiki, boo xam ne vraiment dafa ànd ngir yàlla rek ak yow day boo tax bi bàyyi waxee musuma ànd ak sëb yi ko ñàkk fayda man ne ndokk yàlla waaye waxut mos naa nag nag dakoog libre na mën naa فليكتفي بالصادق في المحبة لا في الصحبة وخم الفعل بمدكنا آه. من فمن لم يكن له تعلق بشيخ رضي الله عنه فصحبته تقطع المريد وتعوق المراد لأنك آه، وجفت كل تجانيتهم كل يوم ندم يودا كخري لأنك كوفا تقطع المريد لفايد دقتال بالتجاني وليس التجانيتهم ka xaw a nekk sëriñ itam ci tarixa bi taxuqu daf koy gàllankoor marche ba dootu gaaw wala day taxaw wala muy dellu ko seetlu ko rek na xam nga moom euh, bàyyi jàng nañ ci mun yéene ixtar li nafsika alladi qataa inna euh, inna tibaa tasriqu tibaa booy tànn tànnal nit ku bëgg a topp yàlla wax jikko day sàccante loolu amul yoon bon وإن بعض الاجتماعات الدينية والطريقة آه، في الطريقة السر فيها والطريقة السر فيها إلقاء المريدين لأن أمنا دجي وخمنا في طريقة في الدين لكي موت مدخ ما نجد كسون نموي دفاي دفاي دفاي باكسيني ولا دفاي دفاي انسميني تالي dafa dugal ci moom lu ci nekkutoon ci yiw ak leer wayn waqa fiha adna shawbin nee na jotaay yooyu nag li mbaax baax bu amee lu ko lu ko kooj tuuti rek min nafsin aw hawan walam yusjar saaxibuhu wa yuradda ila alxaqi afsada kathiran min sir alijtimaai mbooloo ci tarixa bi ci diine bi nga xam ne dañ fay toggee murid mu di ko fa yëkkatee nee na bu fa amee ku ca dugal lu ca bokkul te jàccuñ ko ci saasi rek dafay yàq lu bari ci mbootam jën daje waaw bu ca bànneex ba ka wala bugg a peeñ wala bugg a dominer wala bugg a rek te ci saas delloo yu waa ji taaj ko fu mu war a taaj nee na dafay yàq lu bëri bari ci mbootam daj boobu la siema ida sadra min nahwi kabirin leen rawatina nag njaxas moomu su fekkee ne kenn ci kilifa yi moo ko yéen ngi dégg de wax ci daanee njuum te taal bi fii moo gën a oyof njuum te mag su par exemple tey su si yàlla nattu as mbooloo wala am mbooloo am ki nga xam moo moom ci daje boobu war a am mbóot yi bàyyi wax nii ñu kooku ci war a segg lëndëmal ko bàyyi mu nekk dafa yàq lu bari suñ ko delawul te comme kenn mu ko delaw na ko lu nga ci xam ci lem li yahdhar al mushriq ala nafsihi wa أو هوى ولم يزجر صاحبه ويرد إلى الحق أفسد كثيرا من سر الاجتماع لا سيما إذا صدر من نحو كبير مثلا مولا فرز عم تجوبي وانا كي كلفة كلفة نوية لا أقوى من المعلم كلفة مولا كان ركي قاعد يسامبا صرابات ركي su se daje ngir yalla wala tariqa bi rek suñ ko delloowul buñ ko kiwul rek na yàq lu bari ci mbot mu taxone ñu dajé ah, mu ne rawatee na fekkee ne ci mag la jóge ratin bu jógee ci mag bu dee ko ben atom bi bi xébu ko yàq na dajé ko dukhuluna fil asbab tasatturun nee na boo ñu gisee ñuy kër kër yi ci yëf yi jaar ci fu nekk lam war a i di di di faari causalité ak cause yi c'est que dañuy nëbbu ñun dañuy nëbbu dañuy sutura ñu ngi sut dañuy dañuy làqu waaw ku ne déggee ko nu la nekk wa ax wa axdun bi xuslin min axsaani lxikmati nee na ba ma waxee ne xikmatu wala ab bànqaasam mu ne boo gisee ñuy kër kër yi ci asbaab yi moy ñi ngi japp ci bankas ci bankas yi ko ci foog ñu seen du fofu sax ci place way dañuy nëb bay mu ne yalla neena wa man ahsanu qawlan mimman daa ila allah wa amila salihan wa qala innani min al muslimin ni fatli ba yalla ne wax len ma rek ku gëna rafet wax ci waxi waaj jeng xam mi ngi woote jëme ci yalla boole ca jëf-jëf ju yiw te nag wax solo nen maa ne man ci jullit ñu laa bokk amul benn complexe mu wax ne ñi nga xam ne qaalu rabbuna allahu summa staqaamu ñooñu ñoom itam ngeen bàyyi Allah waaw ba tey benn ay biir sax waaw wa ñu woote jëme ci yàlla jëf ju baax wax na yàllaay suma borom jullit laa te nag sax ca lañu wax du xaar bu leen romb rek def mbaay mu ne ولا بد من زجر الأحباب عن كل فعل يخالف قوانين أحباب الدولة الفرنساوية فموافقتهم واجبة يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا هم يسعون بالائتلاف والسيادة mu ne ko ñii fi nekk di taar di France amee woon fii euh, loi yiñ tëral ngeen jéem a sàmmante ak ñoom kooku war na leen parce que ko ñoo fi ne te nee nañ dañ bugg nit ñi déggoo ba ñu jaañan ba jàmm am ñooñu ñooñu ñooñu muy wax ca ca Mauritanie foofu dafa amoon ay xeex Cheikh Hamallah ñu yóbbu ko ngir ay histoire yu yu ndaw rek ay bar nekk ci ay guerre mooy la nag maanaam xeex ak France foofu ci Mauritanie suñu nit ñi jéem ñoom ci loi yi tëral pour nit ñi am jàmm moom fii Sénégal moo ne woon mi ngi ñaan yàlla mu am jamono joo xam ne dootu fi gis benn tubaab ci Sénégal nañ am daaw mooy nañ évacuer réew mi te seen dem gi bu mu indi benn perte muy doon ñaan ci année année wax na ne maa ngi doon ñaan sax ma dem ba dootuma gis benn drapeau buy junju kéefër te ma soxla yëpp yow xam nga bu nga faj yàlla lay nag li ma nekk ci nii la doon waxee sangi jànnaare ci naxewul la nii la doon waxee mbokk moo xam ne baax na bàyyi seedeel ko mu di ko moom itam jël responsabilité pour na wax ak ñeneen waaye wax na ñoom wax na ñëpp nee na nag du ma saaxibu sëy fi du ma amee mu digle laa mën ak tere nekk ci li ma leen di woo kenn mënul def lu passé loolu waaw maa ñaan yàlla comme dépp comme ëllëg allah parce que bu ñu dajee rek production bàyyi la direct ci jamono joo xam ne politiciens yi duggagul ñi ñun rek fi nekkoon moom lii la doon rëdd nga xam ne baax na pour fii baax na pour Màkka baax na pour fii su boppam su ko gis plus nañ ci yàlla jëriñ jëriñ ci ñu judoogul kaset yi ñuy xeet nii nga xam ne da ngay teg rek mu denc la def bi boo bëggoon laaj fukki yoon doo te mun nga ko tourné yu téeméer yoon keneen jël ko instrument la yoo xam ne yàlla nañ ko jëriñoo lu nekk kam intéressé tuuti na mais jarul xeet wasalaamaaleykum wa rahmatullahi tey nag am bu ba seet comme d'habitude rek buur daag yëpp ah.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 parce que fu ne lii dundee fu ne la bind ko tey soo dafay gis fii ñaar. waaw mu fàttaliku cosaan la xam ne ci bind loxo mu indiwaat rek. moom suñ ca yeggee moo war a dund. macha allah bii laa ko def ko bind ñu ñu ziare si woon ba ñibbi. keroog naar yi. mu ne fa ila jamaati zuwaar. بغل لفوق بغل أو يظلهم جميعا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله آمين إشاك ولا كده فانا من الناس تربانك جمجي مبالو من خمنا نيو زيارة شو أه، من لا يالنا رين يالنا كرم نيو نيب تكر عرشم قبس بانك خمنا كان لن أبو الكرم ويكرم tamit ñaar mi ngi junj xadis jeew yéen doon wax naan yàlla dana yaral dana keral nit gis ba moom rek am ker su mel ni ku mel ni ku mel ni bëgg a yàlla ci la lii nag muy xaw muy jël benn kii تريد تريد ف من الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين من اما بعد كنا بما تملك تدعو يا سنتكم فسلام اثنى وتحيه الحسنى يكون يكتكم نلوكو yaumu ahbabana xaysu qatanu kon nag bi gannaaw ziar nit ñi ci la ko yónnee ne nag bii moom moo jëmoon bi xam nga salaamul asna wa taxiyatul xusna ya umm nga xam ne salaamul la mu ne ma nga jëm ci suñu soppe yi fuñ fi mun di dëkk wa axussu ahla Mauritanie maa ngi ko maa ngi ci jànge nag kii maanaam singulier la donc janaaba xam nga janaaba xadrata jaanibu yooyu yëpp mooy wane ni ngi jëm ci côté yow umbu janaaba ahbabina ci seen ci ñoom la jëm maanaam ba mu jógee foofu la jëm ci direction boobu ولو أخصها مرتجلي بعد السؤال عن أحوالكم والدعاء لكم أن يحفظكم الله ويحفظ أولادكم وتعلق في فز ذلكم فز ذلكم زالة ذلك من مكاره الدنيا والآخرة ويرزقنا وإياكم الحق على خلقه بقوله وإنك دب أخلاق الأخلاق وإنك لعلى خلق عظيم فأكله بجهد gannaaw nuyoo bi mu ne li ci topp mooy xamal leen mais avant xamal leen nag ci la dugal ñaan googu yëpp yalihi al-i'laamu mu ne nag hmm, la cay tegu gannaaw bu ma laajee seen mbir yi ba xam fi ngay nekk ñaanal leen yàlla wattu leen wattu seen doom yi ak képp aju ci seeni sembaat maanaam seeni tallu آه، يا المسلمين لين ورتو لين تي ييب ييب تي ادنا الاخره ورسدل نيو ورسدل لين جيكوي كي الله تاغو جيكوم نكو وانك لا خلق العظيم مو يونت محمد يو يا نك تي دين تي جوب تاي تام تي كوغي ملني نار غور وخم يو يا كو يا كو كون دي دورو نيو الاعلام خمل لين باني ما يسرني الا ان اسمع منكم خيرا في كل وقت dara du ma bég lu may rek waxtu wu ne ma itte jàmm daa bëgg dëgg ci yéen mais yéen lay déglu itam muy euh, beneen dersu ci responsabilité jiitu ci yàlla su nekk ko màkkee magam ak ñu aju ci yow luñ bëri bëri waxtu nekk sa xel war a nekk ci ñoom bu dee ñu ndaw ñi dañ ko war a jéem cultiver ko bu dee xut bu amul ngóor moom fu mu ne xel xel ma ngi ci ñoom eh! yàlla ko tagg ne ko wa innaka la ala xuluqin azim yàlla may mu ne wa ñu am ñu itam cër ca jikko kooku yàlla tagg jikko maanaam jikko yonent bi xam nga jikko yonent bi li nga séddu ci bàyyi yëpp ci jikko yonent bi dafa dafa yónnente rek moo tax anas ibnu malik radhiyallahu anhu nee na liggéeyal naa yonent bi comme fëkk néegam nekk nekk di xale bu nekk moom fukki at musuma def dara mu ne ma lu tax nga def musuma ñàkk def dara ma lu tax def loo ou anas est très correct wala yonent bi mu mu ñaakoon waaw wala ñaar yëpp sax maa ko ko jàpp Ya, jelas ya, lagi. Salah, eh, eh, eh, Pak. Yenge doora commencé gis na wala xam nga loolu ñaar rek boobu ne am ci yeneen bind yeneen langue yi commencé bind ñaanal ki ngay bind waaw dafa bëri nag moom ci xutba arab ak ak ak arab ak waxi diine parce gannaaw sant ngi leen di xamal avant maa ngi leen di xamal mu ñaan ci ñaan yu baax waaye li ci gën a koy mooy yàlla may ñu ñun itam ci jikkoy kupp yàlla tagg jikkoom ne ko wa innaka yow yonent yàlla muhammad amul benn sikk la ala xuluqin azim yaa ci diine ju màgg yaa ci jikko ju màgg mi ngi ni yaa war jikko di ko orienté ku la ne ala bon mu ne euh, lu leen neex rek ma maanaam li ma neex daay man rek mooy may dégg xibaar yu baax ci leer hmm. wa takuna qaraa'inu axwaalikum mutaabiqatan li aqwaalikum bul wax aqwaalikum te itam ne ko seen mbir boo ko xoolee étudier ko lim lay jox mooy juste li li la wax yi di jox itam maanaam nit ku nekk may di bu assuré itam nga gis ne mooy lool mooy loolu maanaam yàlla seen zahir da boog seen jëf loolu def xam nga tarbiya la ko wax ca rek wal asri inna al insana la fi xusrin as suurata mu ne boo koy jàng-jàngal saawo yëpp nag wal asri yàlla moo ne gëñ naa ci asru ñu ne mooy julli takkusaan wala mooy jamono mutlaqan ak i a wala jamono yonent bi l'essentiel bàyyi nee na yàlla bu gëñee dafa bëgg nga fonk li lay wax mm-hmm. mun yàlla moo gëñ ne amul werante ne nit xeetu nit yëpp yëpp kenn génnu ca ci perdition ak perte ak ñàkk moo leen di kenn mucc ci mm-hmm. sun nag lu mooy ñi saar wi tudd ñeenti catégorie illa ladina amanu lu mooy ñi nga xam gëmaan yàgg nañ koo firi wa amilu saalihaat te jëpp nañ farata ak naafile maanaam lañ mën ci farata ak naafile watawaasaw bil haqqi tinding kan dénkante dëgg bil sabri tinding kan dénkante muñ ki bay bàyyi dafa sarwi ndax neena na sax yi ñaare ñu ci dajaan ñu ci tasaaroo rek dinañ jang wala asli bu ñu bëri foog ne léemul fekk bon alquran yeb am barke mais ki manam fatali ay principe xam nga ne yàlla bu tëkkoog mbindeef yeb lu may ku ci bëgg mu ci ci ngay nek bay nak di ko tass di wax ne di wax ne fal xuruju min al xusraani mucc ci perte googu yàlla wax laa yataattaa illa bi hadihi al ashyaa al arbaa du mën a am mukk lu may ci ñeent yëf yi laay jox alquran yoon mu ne al imaanu mooy gëm yàlla wal amalu saalix ak jëf ju yiw wa tawaasi bil xaqi ak dénkante dëgg wa tawaasi bi sabri ak dénkante muñ li tax nag saaba yi di ci insister di ci insister mooy daanaka xam nga bàyyiwul dara ndaxte eh, iman mooy nga nangu appel bi ca na ko yàlla waxee ñu ci jàngale la gëm ci dellu si eh, jëpp ju yiw mooy bàyyi daf koy firé parata yeeg naafile yi dinañ ko fi bu ñu waxee parata yi moom kenn du ko wàññi naafile yi géej du jeex la way def ci li nga mën tawaas bi nag kii la moom luy dem di ñëw foog moom feedback yaa ngi may dénk maa ngi lay dénk ma xam de wax ma ma xam yëf yi ndax dégg nga ko ndax jëf nga ko may dem loolu mu des nag lu ci indi dénkante muñ bàyyi ne ndax képp ku ko xam ne yëngatu nga am la nga bëgg war ngaa muñ ba sant yàlla te doo bew ku yëngatu te amoo ko war ngaa muñ pour encore resserrer ki jéem a continuer bu quoi muñ moom mun jeñ ak moo tax yàlla nag ne inna laa maa saabiriin ñu foofu nag raw ñëpp yokk yàlla ci ànd bon bàyyi nañ ne kon ñeenti yëf yooyu la wax ko du ci insister mu ne wa inna li muy wax si yëpp li muy laal dafa am bëgg a tudd ay kilifa ci naar yi jox leen seen waaw wa wane seen seen nit pour taalibe yi taxoon di ko wax parce que du li muy bind yëpp dafa lay wax li taxoon mu di ko bind waaye xam nga ne lu ne am na cause waaw moom bàyyi sax dinañ ko gën a bind benn tontu yoo xam laaj nañ ma laaj boo xam ne da nga ko xam ci biir tontu bi sans mu wax sax laaj métti tontu mu ne wa inna haulaai rijaala kulluhum axi fillah wa walad ruuxi ni mu ko bindee foofu wa walad ruuxi xam lu nga bindee wa walad di wa ruuxi déedéet wa walad ruuxi wa walad ruuxi suma suma taalibe la wa saahibi wa habibi mu ne ñii may wax si ñëpp nag ku ci nekk suma mbokk la doomu roxo la suma saahibu la ku ànd ak man ci yàlla mbokk la ci yàlla suma doomu roxo la suma saahibu la ku ànd ak man ci yàlla suma soppe la koo xam ne dama ko bëgg mooy ki nga bëgg yow waxibbu mooy ki nga yasuuni lu leen naqari rek ñi may wax si naqari na wa waaye surru nii xamul ngeen dund wa sarra nii wala leen neex rek neex na awaluhum cheikhaan cheikhaan yi mooy man naaba man naama dul xaafis bi janoom sedna cheikh nekk moom ay at ci faas ba mu yabal ko mu ñu gis wax ne ñoom ñëw ci fayda bi rek jàpp ci bàyyi eltu ci bëdee ci rek doy na label pour fay ko dangay suubu nii maay mooy seexaan yi loolu tur yu bëri xëy na ci xale yi ñu xam lu tax seexaan parce que ci arab seexaan yi rajulaan yi baytaan yi baytaan yi kooku dualité la te seexaan yi kenn la seexaan mi ngi mel ñaari sëriñ seexaan yi moom kenn la ci xadis boo dégg ñu ne rawaahu Cheikhaani Buxaari ak Muslim la ñu wax fii Cheikhaani xam nga naar ci seen aada yaay ji mun naa tuddee doom ji ay nijaayam daa ji tuddee ku ko neex moom dañ ko tuddee mën na sëriñ la ci côté yaayam abba sëriñ la ci côté baayam bi mu nekkee taalib baay nag bàyyi gàttal ko ne Cheikhaani ñaari sëriñ la loolu ñaari sëriñ la ba nga naan man na abba mi ñu tuddee Cheikh xam nga gudd bàyyi ne fa kullul wujudi yaalamu makanatahu indi waxuma nit ñi mais tout l'univers ñoom xam nañ ci cheikhaani toll ci man place am ci man xam nañ ko te kooku jiitu na fa kullul wujudi yaalamu makanatahu indi قبل أن أتخذه نائبا عني وقائما مقامي في تبليغ أمانة الشيخ رضي الله عنه même sax bi ma koy laata def muy suma naib bi ma wóotu foofu taxaw suma taxawaay ci jotal amaana kóllëre gi ñu Seydina Cheikh radiyallahu anhu sant mu wuutu ma ca di ko di ko jotal avant loolu sax ñëpp xam nañ fi mu toll ci man mu ne wala ixtiyaaja ila hada tasrix takat li ma leen koy wax nii sax mu wóor sax jaru ko ndax moom itam soxlu ko pour mu wax ko wax gi jaru moom soxlawul ma moom loolu na mbir mi leer mu indi benn bayti bu benn waaye waxoon ne wa kayfa yasixu fi l adhaani sheyun ida xtaaja nahaaru ila dalili moo na lu lu xel di jëriñee ba buñ demee ba jant bi fenk nga nekk ci bëccëg wala ne jant baa ngi fenk ni laaj na ngay ngay indi ay preuve ak ay jant baa ngi kay jant baa ngi soo ko weddee taxaw ci léegi rek décidrate ci léegi mm. waaw moo di ma waaw wa kadalika sayyidul hadis la foofu kon jar na tuddee nañu benn parenthèse ci nga Cheikhaani Mouhamadul Nafi moo ko jëlee ci baay. Mouhamadul Nafi moo ko jëlee ci baay mooy taawu naa li moom mais ba mu ñëwee ci Kossy ba jëriñu ba mu dee ba mu delloo gànnaar Cheikhaani jeune mu ne leen gars yi xam nga lu ma leen di wax liñ doon xaar yëpp yëpp ci as ndëkk suñu naan Kossy fa la dox tey fekk Cheikh Ani njëkk Chérif fi ñëw gis ko Amin Ndiajem nee na mooy de maa ngi nekk ab topp mooy nettali de léegi ñëw ñaan ko addiyee mu jox moom ma def foofu ki waxee nag bu daw ñëw ba mu ñëwee moom na fi jekk xoyat la na fi jekk raffiné la ñëwul rek nuyu bàyyi daf ko nuyu rek da ko jàpp sax alas xiwaani xanam saada imal wamaaqi min kasafiyatin minha siwaya su eh nandalal ku mara mar bay ngabaka ngeppi ci kaas bu sell boo xam ne déjà am na ku dul man ku ci naan maanaam di ko wax nag di ko wax nag fa anta aslu li dawxati alulumi nadi wa min nada al asli tul fa kasratu lwariqi yow yaay garab ak ndañu tàngee xam ne reen yaa ngi ca bàq ba fa mu tooyee te tooy ak suuf bàq mooy tax garab ne di ko wax di ko wax nag di ko wax nag ba ne ko nandal ma laa la waxoon mais baxrul miyaahi kafa minhu sharabu wa min baxri lxaqiqati laa yakfi siwa lgarar xam nga sori soriwul mu ne ko nee na nandal waaye nag géej ak ndox moom boo ciy naan da ngay géej xaq rek may wax nag duñ naan doy lab ca rek moo doy kii mooy mooy ABC mooy AVC bàyyi nag ndewal ba ci kii ndewal ko ne xut bi nga seeti borom plume la wal ba ne ko ne ko fa jidd si xan wa bil mawla al karimi si qiyaman lahu kullu aslin fil ula ariq fil ula ariq mu ne ko ah da ngaa bëgg a naan da ngaa bëgg a yegg da ngaa bëgg a lab kon nag takkaayu amul na takkaayul nag si seen jiir te nga tëgërloo nag yàlla yow mii nga xam ne dëgg-dëgg booy topp say cosaan sa cosaan yëpp wóor na waaw di ko wax nag ne ko ma naan ko laakin na maa xayru bi xaali fardi wal xilaq ak yi ma lay wax yëpp nag ba bunt bu jub bi straight way bi nga xam ne moom boo ci duggee jëm fa nga jëm mooy tudd yàlla boo nekkee yow kenn ak boo nekkee ci géew euh, ko wax na من با پر رکیا ربی فسخ لنا شیخانی فی تو و یا اللہ نام دل شیخانی وای کی طریقہ جی طریقہ ہی خمد طرائے نا یا در نولی دی جا حدو فینا بنتی انہ سبورا یعنی تکایو ارمان سونو بولے دی اوریان تو بین یون یون یو بیلو کم اس نخفی مجارا تو تو جائی بکو یہ پنجا بو تو کون حکیم کرموزی دی وقت امنا کنی تو دیو وزی waliyu xaqilaay nag ñu ko ci dugg te waliyu xaqilaay dafa poche ah dafa sonn dafa wet ñett dafa bëri dafa sonn dafa ñagal waaye kamal yàgg na ko mu ne nag ñaari day foog ku jaarul foofu rek doo waaja mais waliyu laay nag waliyu laay la waliyu xaqila kii ci droit la jaar kii nag waaw ah, ku nekk xanaa nekk ba tàng mu ne nag ñaari duñ déggoo moo tax waaja gaar waale bàyyi yónnee ko naar ba وما أوتيتم من العلم لا قليل لا لا من يلا كو ويعلم وقته ويوتيك متى فأوتي خيرا كثيرا قليلا في يلا كو قد كثيرا في يلا كو صدق الله العظيم أو شيخاني مو تجور من دوما كل بلو وحن يعني تبكت شيخاني مو كان مو وكذلك السيد الهادي هادي wala sëy sëñ bi moo sëñ bi moo faal moom itam. Mm-hmm. mu Cheikh na ci jàng ko waaye tuddee woon. ñu dafa jub sëñ na Cheikh ni san kay tuddee moo faal. Seydi Jula. dégg nga mm-hmm. mooy turam mooy turam Jula. Mm-hmm. ki ki kattan yi dafa ko war tout sobre. waaw ko teg kenn Seydi Jula. waaw ak Mouhamad Ibn Nahwi. محمد جوب نك نكوي جانجي نيو نين ييب محمد لي مي موم تورو وي دارغا دنجكوي سد محمد جوب قول نافي وسيدي محمد ابن المشري ميغي بن في بشير دكو نيو وخلفاء الشيخ في جيجبا اك نيوتو سيدنا الشيخ تي جيجبا شيخ محمد عبد الله وفي تندر محمد بن فضة كيف يوقع نكوسي من الحيدي في جميع الأسباب وفي تجاجان ابناء ابناء محمد فمن واحد منهم بغير واسطة او بواس او وسائط فكانما اخذ عني وعن الشيخ وفي كل نسخ مين واحد اكثر من يدمني يوم ku jàpp ci kenn ci ñoom directement mu jox la wala nga jàpp ci ku jàpp ci moom wala ku jàpp ci moom ñoom ñëpp yaa ngi mel ni yaa ngi jàppee ci man yaa ngi mel yaa ngi jàppee ci Cheikh dana ci ñëw ci kanam hmm. fa kunu ixwaana safa na ngeen nekk nag yéen ñii may waxal ixwaanu safa mooy mbokk yoo xam ne seen diggante ndoxum jokkoo dafa kay amul sekk amoon na nag ci histoire bu pensée islamique ñu ngi daan wax ixwaanu safa kooku beneen affaire waaye ba tey ixwaan mooy ay mbokk pluriel la safaawu mooy seen ixwaanu safa yi la waaye mu ne soo ixwaanu safa dafa siiw bu defee ko noonu laa taxaasadu rikk bu leen añaanant wala tabaaxadu bu leen bañant wala tadaabaru bu leen joxante gannaaw ku ne daa xameer sa morom. Hmm. te wax ko te su baaw du ma baax. على ما يكون يقول لا عندكم الباقي dégg nga ne kooku xadis yonent bi toujours nga dégg ko ci xutba bàyyi doon wax aaxaa bayna arwaaxin wa arwaax xadisa wallahu yuallifu bayna qulubi ahbaabi cheikh dékkalu diggante xolu taalibi cheikh radiallahu anhu inna wali dalika walqadiru alayhi wasalaam ñoom neex nañu waxal lettre bii ca déwén sa la bàyyi door a dem jànn ca déwén sa na nga bindee lii jëlee sa dem gànnaar voyage boobu man ànduma ci am na ci olof yi ku ci àndoon koo xam ku am chance ci cekkeen cekkeen yooyu doomu ci la àndoon yaa may mun a faal ci la àndoon hmm. bon donc moom leer benn bi nag moom def ko yónnee woon ñëpp comme daf ko yónnee ñëpp nag xam boobu amuñ machine sunu yàlla moo amee nusxa bi bàyyi bind di sotti nag di yónni duñ du delluwaat ci bàyyi itam bàyyi ci signé yi ñu amuñ sikk def naan maa ngi ko bindee ci isnu diw maanaam léeg-léeg mu ne la ci xalimaam laa toxale yooyu yëpp signal yu su ko bàyyi ne bindal lii digte ko ko su ko bàyyi bindal ne ko sotti يمتلكي عن إذن البروبايرة يبني قمنا بو بو بو بو بو منانك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا تبيهم جرنا سيرسين جوتنا أغنى فمي لكم والصلاة والسلام على الفاتحين محمد خير الذي حمات الشريعة المحمدية في كل مكان وحين ويدور ربنا يخبرنا دوخن ريت toujours day sant yàlla di jubi conante bi nga xam ne mooy faatix mooy xaatim xaatim fati maw la xaatim nas anas xaq bi xaq waxoon naa leen ne programme ndax dëgg moom foog moom correspondant du ko may rek gis def mooy xaatim fati maw la xaatim nas ndax dëgg moom foog moom correspondant du ko may rek du sotti te yàlla ne alquran bi xaq anzalnaahu wa dëgg laa ko wàcce ci la wàcc itam de c'est très important naa ko ñu misaal ni ku dóor ku bënd ci école école fii ak xam nga jàngal nit dëgg la bëgg mu jàng dëgg la corrigé ko du sax dëgg la mais nag bënd bëtam du dëgg moom moo tax naa tudd xam nga ki amul foofu toujours xaqu bil xaqi moo war a am ci lu ne ci lu ne nag إيه؟ هذا حق حق مولى مولى محمد بن خمني كو يالا يوني رك مولى دل مولى مقام مثلا قالوا اصحابه نيوم نيغا خمني نيو ار شريعه محمديه كبار بره ak jamono gi nek moo tax ñu ne al ulamaaw warasatul ambiya ulamaaw ñoo doon yonent yi wa radiyallahu an sayidina wa qudwatina saaxibi almaqaami almakin wal murshidi naasiri almuin yal na yàlla gërëm ci suñu sang bi suñu royteef bi borom maqaama mi nga xam ne dem na ba cadre nag amatul bu mu jëm plafonné na maqaamul makin ki nga xam ne moo ñuy jubal di ñu orienté te mën a laay biir lool te daf lay laay ba ba dimbale la ci noo koy appliqué ne kooku mooy kan mu ne jarta tudd mooy Cheikh Ahmed Tidiane mu ne bat mu ne ba baaxu gannaaw sant yooyu nag ak julli yooyu nag ak rida yooyu nag fa haadihi wasiyatu naafiatun dénkaane la lii may wax si nii lii di ñëw dénkaane la bu am yu am njëriñ ay orientation yoo xam ne moom orientation la xam ne yàlla rek a tax ci yàlla te itam du wax ju ordinaire wax ju ci nekk jaamiru la mooy maanaam li ci war a nekk daf ciy nekk wax ci dugub ila hadrati sayid Fulan, dañuy appliqué nag caab ñëw new, ñëw ñëw ñëw من فلان معناه مجيب moy سيالي ما يأبليكي وإلى كافة ikhwan haythu ma maa man koy bindi sa fepp bokkam tambe nek rek do bi ci yow jëm ba ku ko mu dégg day ci wala jëm أوصيكم الذي أوصيكم به اؤكد عليكم الذي أوصيكم به وأؤكده عليكم حيثما كان السلام عليكم أحبا عليكم يريد الإعلام بأن, الذي أوصيكم به من علين إلين خملنا لمن دي وأؤكده عليكم وأؤكده عليكم خمنا كيف كيف وأؤكده عليكم akiduhu aleykum parce que arab daanaka quatre-vingt-dix pour cent tey ci rajo arab yi takki dañ koy yàq bokki bokki bokki du ala kaza ma loolu kenn xalaat du ko mbir li li ngay li ngay fedd di doo ko du am ala mukk ci arab ki nga koy fedd di mooy am ala wakiduhu aleyka wujugal musa mais wax naa ko ci suñu benn commission kenn maa dégg ci ma ko mbir c'est pas li may leen di dégg te di leen ko fàttali mooy an ah non non non okki doole bu la affaire amul oofu ndax li muy fàttali mooy an taabdu bul def ko boobu okki doole kum li ma leen dégg te di leen ko fàttali mooy an taabdu bu ngeen ñànkat bi la waaji si kum loolu mooy lan huwa hada diin muhammadi foofu islam li ma leen di dénk leen ko fedd mi na ko ko nekk ngank ci dégg ñam la yonent waxoon mooy diine ji diine yoon teel Muhammad ji ko yàlla ni wax wal islaamu wal imaanu wal ihsaan ndaxte ba Jibril dégisee nekk nit ñëw laaj nañ yonent luy islam mu firil ko mu ne ko wax nga dëgg ah, laaj te bu ñu waxee nga luy imaan mu firil ko mu ne ko wax nga dëgg luy ihsaan wax mu firil ko ko ba mu firé ba pare dem dem dafa ne woo leen waaj ñu ñu ko gisuñ dem na de mu ne Jibril la ñëwoon di leen jàngal seen diine boo tax mu ne bi mu ne haada diine Muhammad yi mooy lan l'islam iman ihsan ba Jibril firi إطلاع موي تبلو إيمان موي جم إحسان موي رحمة وإن كبيرين زاد وهذه الطريقة الأحمدية الديانية مو متم هلين في دقيقة بينا خمنا نبقى أصلا شيء أحمد الدياني رضي الله عنه وذلك بأن وذلك بالإيمان بأن الله واحد لا شريك له مملك لندي سنك مملك لويكم مملك موي نغم نه amul werante ne allahu kenn la amul bokkaale bu seq ak moom dara fa huwa al waxidu al ahadu samadu lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad ma identité am mooy ca qul huwallahu ahadun kenn la kun cappaacóoli la moom la jubli ci mbooleem aajo yi jurul kenn kenn juru ko te amul benn nawle mu ne te moom موي اجي دكجي والاخر تموي اجي مجتي وظاهر تموي اجي فين تموي اجي نبجي وهو موم عليم كما كون كل شيء في لومولو خمنا العرب بناء الاول منك مانام هو الاول يب نيك نياري عالم دقنا بيب خيتو اول يتو بوك لكن لولو اخر naka noonu zahiriyatu naka noonu batiniya te xam nga boo boo seetlu woon ki domaine u jàngale rek temps bu ci jiituwul rek mu jur booy seet ci jàngale nii rek feeñ ak nëbbu mi ngi leen jeexal la itam espace wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da ngeen gëm itam ne muhammad moomu moomu jaamu yàlla rek ak waaye moo ko yónni mooy message bi yii la te ab yonent dootu am gannaawam mutlax nga def ko ci diggante ñaari kii bu la neexee ak sayidu al abdu mooy sang bi mu te mooy jaam bi itam mooy sang bi mooy jaam bi siyaadatoom mutlaqa la عبودیتوں مطلق نوره ومدده ووجوده te mooy sang bi mooy jaam bi en même temps mooy leeram gi woo gi mi ngi jëm ci yàlla mooy peppam gi mooy amam gi al muttasilu bi sifaati te moo meloo meloom imdaadan minhu wante moo ko ko tëb day dafa wax ne yoon daanaka yàlla jox na ko lépp waaye lii <coughs> imdaada li ittisaal ki moom yépp mooy cosaan waaye jox na kii ki def ko dañ koo tëbb kii nag daf koo meloo imdaad rek ittisaab ak imdaad bi maxdi karamihi moo ko ko tëbbee noonu ca gu amul segg ga wa sabqi mahabbati ak cofeelam gu jiitu ga zaatu sopp muhammad yetoom ga tam jiitu woon lahu fadlan minhu wa karaman te loolu kat yàlla la neex rek loolu mooy te wal imaanu bihi sallallahu alayhi wa sallam yatadammanu l imaana bi jamii l ambiyaai wa rusuli alayhi salatu wassalaam dakat gëm yonent bi yóbbuwaale na nga gëm mbooleem yonent yépp yàlla ba sa yónni kenn du ci mag wa kulli ma jaawu bi ak lépp luñ mës a indi moo tax bu ñu naan dialogue islamo-chrétien allah waahidun ak yi gëm trinité yéen ay waxante ci ñaari ñaari principe yooyu nga xam ne ñu naan déedéet c'est que nag kii même am na cosaanu mission am na cosaanu message am na lu ci réer am na lu ñu ci soppi alxuraan di wax toujours ne ñii suñ gëmaatee dañuy am ñaari yoon xam nga jullit warul naan am na dialogue islamo-chrétien ci ci ci ci làbbe yëpp a ci bokkoon yëpp dañ ko def dañoo tuub tout même ci amee maanaam rapport yi nii leen ak téere nii leen sama sama fii itam fi mu ne ci domaine social la ñuy wax fexe ba crash du am fexe ba lañ tuumalante gi wàññeeku fexe ba ñu xam ne mais ay nit buñ dajee rek foofu dina am dina am contamination kenn mënu ci dara waaw waaw euh, mas ay mas laa la daal da nga de ñoom yëpp nag yi mu wax ne yëpp yëpp yëpp noonu mu indi benn bayti bu ne wa laysa laysa ala allahi bi mustankarin an yajmaa al alama fi waahid bayti bi dafa waaw gi nekku ci du an tajmaa an yajmaa an yajmaa mu ne yàlla mm, du loo xam ne lu absurde la euh, bu ko yàlla buggee dajale àll bi yëpp ci kenn waaw boobu la mën na ko وأن الشيخ الفتي كليكم وأن الشيخ سيدي أحمد السياني رضي الله عنه رسول الله وخليفته وساري سره إلى العين والغيب عوالم العينية والغيبية من أز من الأزل إلى الأبد منين الشيخ سيدي أحمد السياني رضي الله عنه مودن رسول الله وإذا موي خليفة moy tëbbam gi nga xamne ne royaat mbóotam royaat na ci mbollem lu am ci awalim yi nëpp ak yi feeñ te loolu kat ci ësal la ba ëbal mo mom cheikh ahmed mo mo melo melo yi kim don waye imdadan minhu sallallahu alaihi wasallam sallam yonent moo ko dëbb mo dal ko don tafaddulan min xadratihi sallallahu alayhi wa sallam yonentu la neex wa min xadratil waahibi mannaan te mu jógee ca mbootam aji maye ja kay xewalaakoon mu yàlla bàyyi na dalika fadlullahi yuti man yashaa wa fadlun azim noonu mu demee yàlla mi nga xam ne am na lu waaw yutihi man yashaa moom rek moo ko mën xam nga da nga koy jàng te boo ko sën waaye dalika fadlullahi yutihi man yashaa man yashaa bàyyi nee na lu la bu amul condition. Sina Cheikh nee na tariqa bi nag في من يشاء ولو كان منه وتعين الدائرة الفضلية له يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم نعم من وهو موم سيدنا الشيخ مجمع الأولياء وبحرهم ولاية yépp a ngi daje ci moom moo tax ñu ne xaatimul wilaaya بحر الأولياء لا يشرب ولي ولا يسقى إلا من بحره أبو بن ولي كاين المكان بوي نان ولو نيوار كو نان لوماي جيج الشيخ في صريح منه تموكو واخ تي تكس إملاء بني كو من سيد الوجود صلى الله عليه وسلم تي ومشاهدة نمنا ومشاهدة هذه الحقائق ثلاث ومراقبة هي أنفا باب المعرفة nga nga nga seedu ko xaqaay yooyu moo i moo i islam iman ihsan ci noonu ko waxee di ko fungulu nag su boobaa nag taxaw nga ci sëyu ma sëyu ma dafa baax lool allati maarifa bi nga xam ne allati hiya wilayatul kubra am wax naa ne ne waxam yëpp lettre yëpp daf ci borxal ay définition ay définition dégg nga dafa ne maanaam loolu mooy buntu maarifa mooy ko dugal maarifa nee na maarifa mooy wilaayatul kubra wali yu boo déggee wilaya rek ne wilaaya bu mag mooy maarifa وهي لا لا تسقط واجبا دينيا او طريقيا رواية موي معرفة بوبنا كولاية لو أن يلبن ور ور شديد لا دخل يكون زي ديوان لا ور بيكون زي ديوان ولا تحللوا حراما ولا تحرموا حلالا دو دغنا لو حرامون دو حرام لو دغنا وثمرتها من يتم معرفة لا تظهر بين مك إلى بعد لقاء الله في اليوم الآخر loo ci gis loo ci yëg loo ci sëyru loo ca bandexoo loo ca kii loo ca rajaale it pourtant te mbir ma dëgg dëgg yow ma li xaay laay rek lay yàlla mu daal di ci teg aaya ba di waxu soxna yàlla nee na wa innama tuwaffawna ujurakum yawma alqiyama dina waxal ba aaya ji jeex de fa man zuxziha an naari wa udxila jannata faqad faaz yàlla nee na lañ leen di fayee dëgg dëgg nag moom ngir ma kooku bés penc la foo xam na dañ ko soril fa naqar yi yóbbu ko fa neex rek kooku gàññal la xaatam daf mosoon am ay ay ay gaarwaan te yooyu ñuy def bon taarix la xam nga Sénégal ba def bëri woon mooy daanga daanga xam nga foon gé ñu yalwaana ñi daayira yëpp xaalis xel boobu moom mooy suñu la ko def mais nag ñu imposé ñu ko ci gàmmu ak xew ci kër yaatu ñu ne suñu rajo yi seen rajo yi la ko ci benn benn koñ ñu wax wax wax wax ba ñu bàyyi wax kenn mënu ko dégg rek bàyyi mu jëlee ak jeune ah yéen a ko gisandoo de mën naa jéggale dulunya Aristoteles kan merupakan anak sendiri. Benar, apa yang saya apa yang buat insyaallah. <laughs> Nah, awal lagi bàyyi nag firi aaya ba olof mu ne daan teel naan wax di ولا تعلق لهذا الإيمان في عالم الأجسام جم جمي واخنا موم أجول شي عالم الأجسام يا رامي l'univers دي دي كور corps l'univers corporel أجول شي ديريت نحن بل محله القلب إيمان في وخنا خلاصة موي قلب مودين بوم extérieur دي gëna لا إلا أن القلب مضغة ان صلحت

lu gëm-gëm rek sax dañu ko xam ci Alxuraan am na xadis bi yonent bi ne am na ñoo xam ne bàyyi nañ jëf wax ne dañoo rafet njort ci yàlla tànn nañ bu seen njort rafetoon seen jëf rafet concordance ba dee xàq bi xàq xam na loolu yonent waa bi gisoon mu rafet trop sibaar bi fexe ba pare rek dafa am concordance surtout quoi sauf nag ku ñaaw ko mu dégg ko بيجي سؤال مثلا إذا ما كتب بيجي يوم مو بيجي يا ولا بيجي بيجي يكون والولي لا يأتي البتة بحكم تجي لأن ولي هناك معنى معارف هناك دو إدي مك حتى يقول الشريعة وإنما يأتي بفهم تجي معنى قلنا عندي تك بحث قلنا لكي تكتل معي أو فهم u utiyahu am ñu ne utiyahu rajulu muslim lii mi ngi junj ben yahud bu laajoon imam Ali bin Abi Talib te waaye yéen waa kër yonent yéen ñi bokk ci famille ndax am na lu leen beral ci diine ji yoo xam ne pour yéen mu ne ko déedéet diine yàlla bi ak sunna yonent bi wala nag dégg ku yàlla may ab jàmm loolu moom kenn ñu ci dara dégg yi nag da nga koy contrôler autant que possible ñaari baay day maanaam ci xaatu bu jógee ci yàlla xaatu bu jógee ci bakkan xaatu bu jógee ci seytaan ñu ngi ci bind na ci waxtu ci lu nekk daal waaw wa cheikh tiyaani radiallahu anhu cheikh turuqi qablahu wala tariqati ba'dahu yam tàng de nee na cheikh ahmad tiyaani bi mu doon wax léegi ci pas-pas yi te tariq amul gannaaw نيري هو شيخ طريقته إلى آخر الدرس طريقة بوخة سنة موام شيخ مو يسرين الطريقة الطريقه يعني فجبه شيخ فالملقن يرى أن الشيخ لقن بواسطته مقدم بيجوخ بيرجوي بيجوخ طالب بيرجوي موم دا فجسنا شيخ جوخ طالب كو كوش موم باي واخون دا فرن رنجو سامبل noonu la woon su mu xat su mu xaddam bi mënee fexe ba waxtu muy joxe ndigal ci wirdo yi jeex na ci cheikh kon yaqumul muridu muridan li cheikh si waaw bu jógee départ itam taal bi cheikh fi jógee mu ne même maar détaillé su mu xaddam ba dogoon itam taalibe bi franchement mu direct la moom ndax yow da da nga koo ko jot nga woon yow yaa jox ko waaw fa yaqumu al axidu minhu muridan li cheikh ku jëlee ci moom rek booy jóg rek déjà yow sa branchement direct la muridal mulaqi du taalibe bi ki ko saak ko kooku nag maanaam nit mën na ko dégg par exemple tey euh, euh, euh, boo gisee yi am ci yenn réew yi xam nga par exemple tey so sokaana ba ko gaa ñi contre ca Indonésie coow lii étudiants yi seet ne lii constitution bi dara moom bu yàgg ba tey daf koo bàyyi amatul constitution te nit ñi moom tënkuwuñ ci jëmmam ci coow ñu ñu indi ñu jëlee kuy indi soir te leen itam xam nga macha allah alors muqaddam bi daf laa jottali mu ne cheikh a joxe wa yu rabbi bi wasitati muqaddam cheikh mooy tarbiya saalik bi ci wasitati muqaddam bi kon mu rabbi woo cheikh Tijaan radiyallahu anhu mu rabbi bi dëgg mooy cheikh mooy ruux cheikh mooy madada mooy maqam wal muridu xurrun fi nafsihi nee na taalib وأغنى المخدرات من زيد على دي قلنا بقى اللي ينبغي له القوة وقالنا له يلا قالوا يلا المقدم تابت يا فوق الشباب بتاع الجميل فات بغي يجي سيانا كيقول له خمنا ما شاء الله وخلفائه كيف في خليفة الشيخ توك كي بلاص دي ليغي ليغيهم من ويستفيد منهم من غير يجيهم ويفيد من غير يجري افراد طريقة اخوه داخلين بوقت طريقة يعني أي فراد نبدأ كل بالك بس أي خلال والشيخ واحد نعم سيبوك لدي ليس سليم نحن سليم بكلمة والشيخ واحد بعد إذا وسر التربية عندنا هو ضمان رسول الله صلى الله عليه وسلم متى التربية أم إفكاسي دمبوتنا ما يفوار لغيون تيوار لغيون الشيخ نبو كي يفلي دل إك وذلك ضمان مولان مولا بالتزام الأوراد اللازمة والوظيفة وتغن باينة بيوت لازم بوضنا ما يفوار لغيون محجي طريقة والشيخ يونتر كوفاني تحكي ci lu dul xalwa su ñu gis ci gusul yépp coono ci lu dara nit ñi da nga egg xala nag mu ne samaan boobu la mbóot mi loolu la وللمريد أن ينظر المقدم بعين الشيخ رضي الله عنه نانا دال بالتجان بوكو مانا بوك منا منا خول نك مانغري لي واخ منا خول مقدم بي كوم ني مي خول الشيخ بس موي ريبريزانتان اجلالا للشيخ دا فاي داف غير ngir foofu Cheikh Mathiane wala siimal xulafa rawatina bu dee ñu mag ñi pourquoi muqaddam pourquoi xalifa c'est très simple dafa am muqaddam ñu tënk ak muqaddam yu tinki muqaddam bu ñu tinki rek ci xulafa yi ñu bokk muqaddam ñu tinki def ci am ñoo xam ne dañu jàng lu bare am ñoo xam ne ñu jàng yeggul foofu ainsi de suite mais nag moom ku fa nekkal waaje rek je crois que euh, premier ministre bi

إذا الكل هو الغلام الله عنه سبب شهلا شيخ سجلا يوم يبت بشهلا وهم الكل يوم يبت يلف ولو شر مريد في أول انتباهه وغفل عن ورده ووظيفته شكرا وغرق في بحر الشيخ ويعذر لأنك تنبلي فتحه su fekkee ne taalibe bi dafa gërëm ba muy commencé yeewu rek wala gërëm ah euh, jeex ci cheikh ba am temps yu fàtte ngir dooma wasifaam ngir mànkum màndi ak làkkum làpp ci géej bi cheikh mu ne dañ koy nangu ñaar kenn du ko blaan kenn du ko blaan mu ne wa tilka aadatun tazulu fil xaribil aajil mais attention xàll boo xam ne dañ koy nangu ngànt mais nag xàll bu gaaw a dem daf ci war a génn ci balaa yàgg da loolu de man di jaar na loolu la xamu nu mu yem fukki fan la fukki junni at la man a xaw ne daal temps boobu man wérdowuma aussi fawuma dama dama doon reetaan nit ñi rek jàpp nu nekkuñ ci dara quoi duguma wax ba yow ko def naa bu wax naa ne jiwaa ji day jaadu ci sa waaye loolu yaa ko wëy jëlee mais yëpp suma loxo moom loolu laa ci moom reetaan bi kuy ñaar moom bu koy reetaan soo ñëw mu dox tamit soxla lekk ci doon xëy ci diiral xamee da xaw mais yàggul de bil qarib al ajil bàyyi na bu yàgg rek mu def wa in daama su saxee nag waa ji nag saggan nag lab ci cheikh nee na rek comme diw sàngam ca ngaañ rek ah rek nee na bul inda ma nem sax ne ko wa makru pexem seytaane rek wa jës mu ruuxi ak topp mu tekki laa yuqtada bi alladi zaalat shariatuhu anhu walaw jaa bil anba anillah nee na képp ku shariaam dañ ci moom kenn du roy ci moom même bu doon indi xabaar yu jógee ci yàlla sax kenn du ko roy ولكم الحافظ على ما رمزنا له وهو إن شاء الله على الصراط المستقيم يعني هو ما لي ما سيدي جنجو لما جنجو كو جلي موم نك جمو موم إن شاء الله يعني الصراط المستقيم دي هي الصراط المستقيم ولو من زاد أزاق الله قلبه كل جد بقالة جد سخرج قانيوي والله بيسر ونعوذ بالله من الزيغ والإلحاد ومن يمسو يالا جنگ أك أك ودي دي الله فصراط مستقيم لبن xaalisun bayna farsil ilhaad wa damis nañ nee na foofu nga xam dañuy dàq di sax di tab nee na sirat mustaqim foofu la nekk lu sew la ndax ñu nekkee ci diggante sébri ci biir ak deret te dafa mu jaxasoo yow noonu la nekk waaw mu da ngay dem ba weddi lii dara mel ni amu fi doo gis lii jéng fii mu diggante boobu nag lay passé mooy passage boobu bi nga xam ne fo foofu la la foofu la la yàgg bi yóbbu yàlla nag ne waala lay xas bu sa biir ci moom yàlla moo ko garal loolu jafe na ñaan nag mu ne allahuma inni asaluka bika wa bi xaatimi ambiyaika wa bi xaatimi awliyaika kamala maarifatika وكمال معرفة خاتم أنبيائك وكمال معرفة معرفة خاتم أوليائك وليعلم أن لا يعلم dijot liko yow di jot liko itam ci tëj nubu wóotu ci sa yonent yi di jot liko ci ku tëj wilayat muhammad yi ci sa awliyaaw yi li may ñaan mooy xam la xam gu mat xam sa xaatimul ambiyaa yi xam gu mat kam khatin go le kam bu mat loolu daf koy jukkee fenn la da ci jukki ba ngi fii dana mën ko mu ne wax fi naa teel nañ ñëw aar musal ñu min kulli zaalik fi kulli zaalik fi kulli zaalik حتى نموت على الإيمان الخالص الشهود العيان اليقين fii la de min kulli dalika waaw waaw sim naa min kulli min min kulli dalika min kulli dalika voilà waaw sim naa fi kulli dalika min kulli dalika zalali min kulli min kulli zalalin la mais dalika bi kon moo jógu min kulli zalalin voilà ci bu si buñ buñ tarxiis voilà tipo campo, واصل واصلنا من كل زلل وقيم كباب ترخيص حتى نموت على الإيمان بين وجودات تجم كسل جمك جنو جمك سيد وجمك يقين ونبعث عليه تنفنك من ذاك الشيء ونبعث عليه ñu ànd ak cheikh alxabil dieng radiallahu anhu fii jiwaarihi dëkk ak moom maa jëttihi ak maamam في أعلى عليين تفقنا الكويت عليين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق بام جاءنا أرنا نعم جينا باي دفنو دفني قطب بني عبد الله العلوي موكورا xanaa loolu bind ki waxoon na inna xutuuti li ganaami saadatun su ma mbind moom moom texe ni du njël ci daw ba kon yashqa yawman man ra'a yow xam te ku gis suma bind rek wala nga gis ma rek dootoo texee waaye xam nga man jii dafa kanas boo xam ne bàyyi mooy dund ak loxoom ñoom. dëgg la ba tax na loolu yi bind fële ci kaw yoo xam ne dafa ubbi te amoo ci ndigal foofa nga taxaw ngay dee. dégg nga ñaan gi ñaan gi yëpp nii la. déglu leen ku baax te yow xam yi. dafa ne allahumma inni as'aluka ah. xool kay <laughs> non ñaan gi la géex a def ci doog tuuti mais bi ndam lay dem moom ñaan gi def ne allahumma inni asaluka bika wa bi xaatimi ambiyaika wa bi xaatimi awliyaika كمال معرفتك وكمال معرفة خاتم أنبيائك وكمال معرفة خاتم أوليائك وأسألك خاتم أنبيائك بك وبه وبخاتم أوليائك معرفتك وكمال وكمال معرفته وكمال معرفتك خاتم أوليائك وأسألك خاتم أوليائك بك وبخاتم أوليائك وبه كمال معرفتك وكمال معرفة خاتم أنبيائك وكمال معرفته قتلا بك وتوكلا عليك يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه Ừ.

ji. xaw ma bi yàgg lool ci biir dama ko doon wër quoi. nangu na. dégg nga. macha allah. kii moom bàyyi bàyyi xam nga fii moom. ينجي مغلوب يعني يطلب بدون دي قال لك وقتنا ولا إنه موجزا في جميع ما تقدم من أوله إلى آخره بمالك كما شئت بنا عارف بالله الفاني في محبة الله ورسوله محفوظ من سيد علي جوه أدين له في كل ما وقف من علي من أدية الشيخ وكذا أدعي السيد دور الوقت loo gis loo gis rek digal naa la ci loo gis rek ci ay ñaan ci tarixa boobu su may ñaan lu ma bind loo gis rek digal naa la ci waaw muy gën di dem ci voilà. Hmm? ah déet ah ba mun naa ko gën de. waaw xam nga dafa doon yaale ci diggante la ak xaatimul ambiyaay ak xaatimul awliyaay mu nekk nag maa ngi lay maa ngi lay maa ngi jottaliku ci yow di jottaliku ci ki kaste sa yonent yi di ci ki kaste sa awliyaaw yi dama ñaan mu xam la xam gu mag xam sa yonent bi xam gu mag xam xaatimu am xam gu mag mu ñëw nag nga xam ne ñeen ñoom mu ne maa ngi ñaan itam xaatimu ambiyaayikum di la jotlikoo di ko jotlikoo di jotlikoo xaatimu awliyaa yi euh, xam la xam gu mat xam ko xam gu mat xam xaatimul awliyaa yi xam gu mat di ñaan xaatimul awliyaa yi ci yow ak ci moom ak ci xaatimul ambiyaa yi la xam gu mat xam xaatimul ambiyaa yi xam mat xam ko moom ku ci nekk ku mu egg ci yow daf lay delloo tamit bi sàmm tugal la waaw <coughs> mu ne te loolu euh, siqatan bi kaw tawakkulan aleyk dafay ànd ak ma dëgër loola ba nga wóor ma wàkkilu ci yow yow kii yow mii zul jalaali wal ikram sallallahu alayhi wa sallam ñaan yu mag kii moom Abdoulaye bi xaajo ko rab أنا داك واحد صار كلامي الشيخ أحمد يعني ما ما ما ما ما ما القطب بن عبد القطب ربنا يعرف صمدان حاجة بن ابن حاجة علوي ما وراء Normalmente ri tudo, não tem nenhuma desculpa. Danke. Não, não, pega não. Pega não. Hum? نعم نعم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان بي صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله في 1361 de l'Égypte. Mouhamad Lamine Diegane Mouhamad Lamine Mouhamad Lamine Diegane kenn la ci taaru yaay yi gën a bëri xam ci gën a tànk ku euh, teel a ñëw rek laay donc ñu ngi ciy defal gànnaar presque ñaari tribu maanaam ci dawaal yi ak tëjëgal daanaka ay ay wujj lañ ci xam-xam ak xamale euh, Mouhamed eh, Lamine nag daf fi ñëwoon daal di ko tax ba mu war a ñibbi nag alors lam lu mu waxoon lu mu waxal bàyyi bàyyi merci ko mais tontu li dañ ciy xam ne bàyyi koy réorienté moo tax euh, particularité texte bi mooy ay ay roquette ma marque de roquette mais maanaam ay ay ay ay waaye maa yu gàtt la comme ça الحمد لله والسلامان على من لا نبي بعده الحمد لله وحده والسلامان على من لا نبي بعده هذا بالي جوجي من المدينة الأولى كي تريد اه، اه، تم خارج من الجبل تيجي تيجي diggi gàmm ci mille trois cent soixante nee na ko wasiyatul walidi lil waladil baax Mouhamad Lamin lii maanaam haadihi wasiyatul walidi lil waladil baax Mouhamad Lamin lii euh, benn dénkaane la boo xam ne baay moo koy dénk doomam bu baax Mouhamad Lamin عمر بن الجبني حفظه الله ورعاه آمين من أوصي أخي وولد روحي xam nga léegi indi na doom di mu indi itam mbokk mbokk itam mu tekkee doomi maana donc wasiyatu waalid walad boobu jublu ci moom baay ak muhammad nabi nga ni déedéet maanaam dénkaane sédité ak yërëm ko ak bañ yërëm waaw بنزل فوق آه، آه، آه، أوصي ولد أوصي أخي بطل الإسلام يا أبو ذلك وولد الروحي الروح أتسمى تعلم ولد الروح ما يتعلم في رجاء سيد محمد لمين ابن الشيخ محمد الجغني جاني لما كوي دينك جنا لي على نفسي Memang kereta yang lebih murah seperti lain alam ma'al ansat Kerana kecing memang ini dia yang teragali Allah kita kujil ini Menegana orang kali Allah memang kereta yang Di fuglu Allah, fuglu buah khamnya dari tak tak karna tiba dari anak nak tinggal ini Tak nak kira-kira yang fuglu Allah كثرة استغراق الجوارح فيما فيه رضا الله تعالى كلم لي كلو خمني غير ما لانك لا بل دونك رامن ديكار دي واخ لو با بدي دي خول لو ورا خول ام جيل سال بي ييغا دي كلو خمني فيه رضا الله غير ما لانك du ko détaillé waaye nag dina ko wax lu ci jar a wax dana wax nu mu koy amee yamnahu min istigraqil qalbi bi jalaalillahi taala cër yi di kër kër yi ci lépp loo xam ne yàllaan cee gërëmee nit du bi moom lab ci seddu mag ak yàlla ñaari mouvement wala ñaari rotation bi xawla jalaalillahi ma di ko dénk mu ne kada bi mahabbati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi koy dénk itam mm, na muy saxoo buglu yàlla ànd ak nokk yi saxal maanaam cëram yëpp lab ci loo xam ne lépp loo xam ne yàlla bëgg na ko gërëm na ko te du tere xol bi moom lab ci yàlla ak màggam gi maa ngi koy dénk en plus sopp yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sopp yonent yàlla Muhammad nee na ko mi ngi koy amee mu ne wa tuurisuha kasratu zikrihi wa salaati alayhi salaam li doon nga am soppi mooy nga bëri loo koy tudd ak bëri looy julli ci moom dama koy julli ci moom sax dund ko waaye tudd gi ak julli gi bokkul bari looy tudd siiraam ak jikkoom mi ngi mel ni ko fonk gàmmu ak li moom eh, ak nag di julli ci moom te mooy fonk wérdoo ak mana setelah yang diterbitkan ganggu gitu. jàng na fi julli ci yonent bi bi salati fatihi bi ma hum mom moom moom la ñu taamu ndax buñ la mayee wirdo itam marhaban marhaban Masha. Yeah, Masha. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Masha. الله يا مرحبا الحمد لله اهلا قالوا ملاك كيفك؟ الحمد لله عليك الفيديو كمان لا لا لا ليس عندك يا يا مرحبا الحمد لله ايوه kon nak xam nga manam tuuti lañ leen rawé rek lettre bi bay def ko bind cheikh mohammed amin jégan yi boobu mi ngi nek ci tambali doxal nek médine nag ba bay def ko yewi muy ñibbi amna sax yene lettre yo xam dañ ñëwaat ci lool waye mu ne li mu koy dénk loolu la bàyyi dénk doomam xam nga da ngay da ngay gis même ci rabban ibaad yi mu xatima ba nga xam ne ñu bëri amatuñ ko léegi woy bi rek la ñam waaye daf ci waxoon ne lii ak jot li ku la koo xam ne maa ngi ko def ci xarab bi wax yem min ma ya dinn bi jël waa jiitu ànd wala bi dafa foor ba bàyyi sax mën na koo nay bañ ko jox doomam ainsi de suite fii itam dénkaane bàyyi ak doom mooy dénkaane bi gën a foor mais doom jooju rek mbokkam la taalibeem la Mouhamed la muy indi Cheikh Mouhamed Jéeri ragal yàlla la ko dee ak fuuglu yàlla fuuglu ko ànd ak napp yi dañ ko sàggal mukk ak bari lu muy labal cëram yépp ci loo xam ne ngir naa ne yàlla ca te du tere xol bi moom lab ci màggaay yàlla kon bàyyi daan wax naan euh, nit dina dem ba dootu ragal liskoor ndax liskoor bi mooy euh, euh, maanaam maanaam mën na mën na ku gisatu ku gis ku gisatalul sa bopp jëpp xanaa dootoo liskoor euh, ko mahabbatu rasulillah mu ne loolu na ni ñu ñi ngi koy amee ci kasratu zikri wa salaati alayhi sallallahu wa sallam bëri loolu tudd yonent ay mbiram di looy julli ci mom ci saatu su moy yi mooy maye mahabbatu boobu wa zikri sanaihi ak way yi koy tagge nga bari lo koy topp di boko seetee nak ci bay way yi yëpp ñuy way ci gàmm yeeg commencé ak fin yëpp ko mo am si ay mii mi yaag ay